asalaamaaleykum mbokki téléspectateur Prestige TV ñu leen nuyu di leen dalal jàmm seen télévision régionale juróom-ñetti waxtu ci ngoon jot ñu fas yéene ànd ak yéen ci xibaaru maraax gi ci bopp xibaar yi ñu fas yéene waxtaane li nga xam ne rek moom moo di congrès extraordinaire bi ñu amalool euh, doon euh, dëggal li nga xam ne rek moom moo di Amadou Ba ni ki candidat wu APR dinañ ci yaatal ci biir xibaar yi noppi ci loolu wax ci li nga xam ne moom la euh, cheminot retraité yi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon rek ci régime bu yàgg bi di laajte def na fanweeri an li nga xam ne rek moom moo di euh, réglementation contentieux social bi ñu amoon dinañ ci ñëw ci biir xibaar yi noppi ci loolu itam euh, daal ci li nga xam ne rek moom mooy cérémonie bi nga xam ne amoon na fii la ci Thiès ñu tuddee ko rek fexe ba tolloole ñëpp ci wàllu jàng jàngale mi nopp ci loolu daal di ñëw ci xibaaru biir réew mi te ci xibaaru biir réew yi fas yéene daaneel ak xibaaru tàggat yaram yi ngeen jëf mbokk yi fii lee la li ñu doon euh, wax ci euh, bopp xibaar yi ni ñu leen ko doon waxee congrès extraordinaire la ñu amele woon foofee nga xam ne moom moo di euh, King Fahd doon rek déggal li nga xam ne moo di candidature Euh, Amadou Ba ni ki candidat bi dem ci élection présidentielle ngir euh, coalition euh, Benno Bokk Yaakaar ki nga xam ne nag moom moo di njiitum réew mi di Macky Sall moom moo jiite ndaje politique boobu nga xam ne rek ay kilifa politique yu bokk ci Benno Bokk Yaakaar yu bëri ñi ngi fa ci kàddo yi nga xam ne nag yëkkati na ko moom mi ngi ñaax ñi nga xam ne rek ñoo di ay militant ñu daal di gën a wane seen dëggute ñu déglu moom mi nga xam ne moom moo di njiitum réew mi ci micro suñuy naataango bés la boo xam ne dañu toll ci diggante diggante bi ñu toll mooy ndax bu ñu fàtte nag ne yàlla mooy kii fale mooy maye nguur de ku neex nag mun nga wuti la neexi sax nga cëppi cëppi waaye nag dañu xam ne mooy kii maye nguur te may nañu ko ñu téye ko it téyin bu rafet toll nañu foo xam ne nee naa man duma dem loolu nag warul tax xiiroo ak ŋaayoo di am ba la yoroon daanu keneen for ko loolu dafa am solo am nañu majorité am nañu coalition bu amul fenn expérience ñi fi nekk góor ak jigéen ci xam réew nuñ koy yore président Niass ba muy nekk ministre ñun ñu ngi presque lycée terminal expérience d'état ak li fi nekk réew duñu ko foye réew duñu ko jox ku ci jàng nañu téye liggéey surtout nag bu jamono tolloo fii mu toll tey xam na réew yëpp tàggatémbe insécurité partout terrorisme partout destabilisation partout populisme partout dafa laaj taxawaay bu dëgër taxawaayu fulla taxawaayu fayda kon nag Amadou yow mi nga xam ne yàlla def na tànneef bi ci yow la dal war nga yokk taxawaay am nañ confiance ci li nga wax war nga muñ duñ la wax lu la metti teg ko fële te continuer sa liggéey continuer tàllal loxo ñëpp continuer joxe assurance ñëpp parce que en réalité nit ñi loolu rek la ñuy xaar mais xam naa ni partie bi bu jógee ni mu war a jógee dara mënu ko téye surtout surtout avec l'accompagnement de Benno Bokk Yaakaar ak grande coalition présidentielle loolu xejul ci benn force politique. ci euh, wàllub euh, cheminot yi nga xam ne moom lañ doon wax ci bopp xibaar yi euh, ñoom ñi nga xam ni rek dañoo bokk ci ñi nga xam ne dañoo retraité ñoom ñuy laajte def na fanweeri an li nga xam ne rek moom mooy ñu régulariser li nga xam ni rek moom mooy contentieux bi nga xam ni dafa amoon ci seen diggante ak nguurub Sénégal ñooñu nag jàkkaarlook ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di taskatu xibaar yi ngir rek dëggal li nga xam ne moom moo di. Euh, seen baat Adama Isaac Diop moo yor seen kàddu ñu daal koy teewlu ci micro Mame Birame Cissé Gueye ak Doudou Dieye. relance chemin de fer buñ koy wax dafa war a nekk ñaari volet volet infrastructure volet social. mais ñoom euh, infrastructure yi la ñu xool defaraat wagon yi jëndaat wagon jëndaat machine defar raay yi et cetera fii ainsi or que tant que le pers tant que le contexte social est là du ñu noppi. duñ noppi ñoom ñaar ñoo war a àndandoo et mieux dañu war a jiital sax le social pour au moins nit ñi feex parce que ay mag lañu des gens qui ont attendu pendant plus de trente parce que contentieux social mi ngi démarré euh, octobre 92 ak léegi sa fait au moins plus de trente ans plus de trente ans ngay xaar ces ñi euh, ñii ñibbi nañu laaxire ñii muntu ñu ñu ngi tëdd ci lal yi ainsi donc li ñu bëgg daal mooy. Eh, nañu defar raay yi nañ defar bâtiment yi nañ defar euh, dëj ay machine wagon tout tout ce mais également nañ seet li nga xam ni mooy content sociale bi ñu convoqué waat le groupe de travail au niveau de l'AGE mu woo l'expert mu ñëw toog ñu ñu dem toog ñu traiter les dossiers pendant ku ci am droit ñu jox la ko ku ci am euh, aussi également ay euh, rappel ñu waxtaan ak yow seet nuñ la koy fayee loolu bañu ko. nous sommes ouverts au dialogue et la concertation yore naa la 10 millions mën naa la jox lii nga ne d' accord li ci des kañ nga ma koy fay ñu trouver échéance pour fay la ko on est d' accord mooy nit ki mënul toog di bàyyi àq ak yelleefam di dem. dossier yi bari na parce que fii au moins recensé nañu au moins une vingtaine de dossiers yoo xam ne ñu ngi toog seen borom ngi xaar ñii ay causation sociale la yoo xam ne au niveau de l'IPRES yii ay reclassement la jógee grade dem grade. donc ñooñu ba nga ni lañ amoon bénéfice ba ñu amoon au la liquidation. yaakaar ne bu ñu demee dañu am grade supérieur au niveau du du l'IPRES pour seen passe yokk ba ñu demee grade bu ñu njëkkoon am lañ leen donc ñoom it ñi ngi xaar. ci Thiès la ñu amalee woon li nga xam ne moom moo di euh, cérémonie euh, de clôture bi nga xam ne rek moom moo ñeel projet bi ñu euh, tuddee fexe ba daal di déggal li nga xam ne moom moo di tolloo ci wàllub jàngale diggante góor ak jigéen mbir moom nag mi ngi amee woon foofu yi nga xam ne moom moo di salle de conférence bu mairie Thiès ville ci teewaayu kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci wàllu jàng jàngale mi Khady Sow nekk secretaire général foofee ca inspection académique moom nag bokk na ci ndaje boobu ba pare daal di rafetlu bu baax a baax li nga xam ne moom mooy njëriñ euh, gi mu am di dellu si ci solo si euh, ñu daal di déglu ay kàddoom ci micro euh, Pape Abdoulaye Mbengue ak Cheikh Fall. projet bi ñu ngi ko dooroon déjà ci def consultation di xool waxtaan ak nit ñi ngir xam lan mooy jafe-jafe yi Cees am ci lépp lu jëm ci mettital yi nga xam ne dañu koy gis ci biir daara yi projet bi nag bi ko déroulé def ko ba léegi mu jeex ñu jot ci formé ñu bare jot ci invité ñu bare ci ay forum jot ci invité ñu bare ci ay émission ñu ne nag jot na ñu wasaare loolu ak ñoom déjà ñu xamal leen lan lañ jot a def muy partage des résultats waaye it xool yan engagement lañ mën a jëlaat fii ngir liy jëm ci kanam ndax projet bu jeexee rek formé ñu nit ñi ba pare waruñu ku nekk lem la nga ca amee muy xam-xam la nga am muy ay outil nga toog ci amul njariñ dafa war a wëy donc wëyal boobu nag bokk na tey jii tax ñu daje fi wax leen ne li leen def ak lañ mën a àndee dans le cadre d'un réseau pour wëyal liggéey bi ci biir Thiès mu nekk njariñu ñëpp ñu nekk ci biir Thiès ndax Thiès dafa bénéficier woon déjà ci projet bi ñu doon tuddee APCF autonomisation et participation citoyenne des jeunes et des femmes 2014 ba 2019 bay xool li continuité la dañu jóge ci milieu communautaire carrément pour dugg ci milieu éducatif mais ba am benn tànk ci communautaire parce que euh, naam école la ñu wax man école tamit dafa waajur daf ci nekk te waajur yi ñu ci bare ñi ngi ci organisation féminine yi ak organisation société civile bi loolu tax na nag euh, ñu cible waat euh, même zone yi ngir consolider maanaam yokkaat xam-xam bi mu gën a dëgëraat ci yeneen cinq ans mu nekk dix ans yoo xam ne Thiès bénéficié na ci ñi liggéeyoon ci APCF bi presque ñu bari ñooy liggéeyaat ci PTDH bi mais ñu nekk ñoo xam ne tey ji ay formateur lañu ay coach lañu yokk nañu gis nañu yokkute ci ñoom ci seen rôle bi ñu doon joué parce que participant lañ doonoon tey ñu yéeg a yéeg ba nekk ci niveau ko xam ne tey ji ñoom ñu def liggéey mucc ay ci biir présenté di partagé am capacité yooyu te tey na bi ñuy dugg ci APCF ñuy fàttaliku ni rek euh, mbëbët boobu noonu euh, jot naa def lu toll ci euh, juróomi at ak ndaw yu bëri yi nga xam ne rek jot nañ leen tàggat ci li nga xam ne ñoom ñooy wàllu droit humain ngir rek ñu gën a fexe ba xam li nga xam ni rek moom mooy wàllub violence yi nga xam ni dañ ko teg ci wàllu genre ñu daal ci am jàngat bu am solo tàggat boobu nag daal di fexe rek daa ba am ci li nga xam ne moom moo di ndimbalu for ci Frédéric Félix Diouf mi nga xam ne moom moo di eh, directeur eh, réseau wu Sénégal ci wàllu jàngale bi ak ci li nga xam ne moom moo di ak ak yelleefu eh, doomu aadama ñu daal koy déglu ba léegi ci micro Abdoulaye Mbengue ak Cheikh Fall. ndaje tey bi célébration lañ koy wooye dañuy célébrer xam nga booy célébrer moom ngay célébrer loo xam ne xëy na résultat yu yu dal sa xel la. kii euh, bi projet bi cinq ans la durée depuis deux mille dix neuf la projet bi commencé donc def nañu cinq ans def nañu ay activités yu bëri nag ci communauté yi parce que quatre communautés ñoom ñoo euh, seq projet bi muy Thiès di Pikine di Sédhiou ak euh, Noto donc liggéey nañu ak ñi ñuy woowee les acteurs les actrices clés maanaam leader religieux yi comme imam yi ñi yore daara yi góor ak jigéen travaillé nañu aussi ak enseignants yi jàngalekat yi ñi nga xam ñooñu responsable cellule genre travaillé nañu élèves yeeg yooyu lépp pour xeex rek li ñuy wooyee violence basée sur le genre en milieu éducatif maanaam métital yi ñuy def euh, xele yi ci école yi surtout nag jigéen ñi rawatina jigéen ñi donc euh, def nañu cinq ans euh, def nañu il y a de cela deux ou trois semaines benn atelier d'évaluation évaluer nañ gis nañ résultat yi ñu am léegi nag tey dañu bugg a feete résultat yi ba pare aussi xool dañuy woowee prochaine étape projet bi jeex na naam mais ça ne signifie pas que dafay yem fii léegi dañuy xool aussi nan la ñuy def ñun pour pérenniser projet bi parce que phénomène bi xëy na am na réduction mais phénomène baa ngi fi ba léegi te defe naa loolu ñëpp ci war soob sóob muy euh, parents d'élèves yi muy élèves yi muy euh, jàngalekat yi muy leader religieux yi muy leader coutumier yi ñëpp ci wax waaye résultat yi moom dal na xel parce que xam nga ñun euh, éducation la ñuy def éducation aux droits humains donc déjà euh, phénomène bi boo fexee rek ba ñëpp sensible ci xam ne lii phénomène boo xam ne dafay euh, am conséquence yu négative ci njàngu xale yi ba pare aussi xam phénomène bi nan nga koy nan nga koy jële pour nga mun ko combattre bokk yi ñu ànd ak yéen daal di dugg ci biir réew mi taataan li fi jot a ruus niki xibaar ci wàllu pouponnière bi nga xam ne moom la ñu tuddee kër yërmande ki nga xam ne moom moo di Ndella Madior nekk ci loxo yoon jamono ji yaatal xibaaru biir mi ànd ceeg Ibrahima Sarr. xibaaru biir réew mi ñu daal di ko tàmbalee ak euh, coow la xew ci euh, pouponnière ca kër gannaaw ba ñu tegee loxo ki nga xamante ni moom moom lii di euh, pouponnière boobee di Ndella Madior Diouf gannaaw bañ ko yóbboo ci police. centrale boobee euh, ñi nga xamante ni nag ñooy bébé yi euh, daal di nañ leen di jël démb ci ngoon ak li nga xamante ni moo di euh, ñeenti ambulance ci kaw loolu nag bébé yi ñu ngi toll ci fukki bébé yu ñu daal di yóbbu ca structure sanitaire yooyee ngir rek daal di leen di saytu gannaaw bu ñu sukkandikoo ci yooyu les xibaar ñii di takk der yi nag daal nañu wàcc ca pouponnière bu kër yërmande bu Ndella Madior Diouf gannaaw bañ koy toppee homicide involontaire ak li nga xamante ni euh, moo di ay ñaawteef euh, di ko teg xale yooyee ci pouponnière bi nga xamante ni euh, amul benn autorisation ngir taxawal ko ñu waxandi ca leneen ñi nga xamante ni ñoo di takk der yi ñoom nag daal nañu teg loxo ca kàpp ci li nga xamante ni moo di xeex bi ñuy xeex li nga xamante ni moo di ñaawteef yi ñuy amal ci li nga xamante ni moo di biir réew mi ci kaw loolu nag ñu ngi teg seeni ay plan ngir rek daal di taxaw li nga xamante ni moo di population bi ci kaw loolu nag ñu ngi daal di euh, teg seen plan boobee euh, ngir rek daal di euh, mener benn opération de sécurisation daal nañ ko teg ci guddi ñaar fukki fan yi ba ñaar fukki fan ak benn ci weeru décembre bi ci vingt ba cinq heures du ci li wër réew mi yëpp gannaaw ba ñu wàccee ci li nga xamante ni moo di territoire boobee ngir rek daal di saytu li nga xamante ni moo di sécurité boobee daal di nañu jàpp trois cent cinquante sept defkatu ñaawte ñaawteef yooyee eh, ci kaw loolu 223 eh, daal dinañ leen di jàpp ngir rek eh, saytu seen identité ñu jeexalee xibaaru biir réew mi ak président alliance des forces de progrès ngir rek wax ci kii nga xamante ni moo di candidat di Amadou Ba moom nag mu ngi lancé ab message coalition présidentielle bi di benn Bokk Yaakaar ngir rek ñu daal di def ay jéego ngir rek daal di gagné li nga xamante ni moo di élection présidentielle ci ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février euh, bii di ñëw moom nag mu ñuy xamal ni que dañoo war a daal di gagné euh, li nga xamante ni moo di euh, élection yi bilan bi nga xamante ni moom la njiitu réew mi daal di def lépp daanaka yemb na ngir rek kii nga xamante ni moo di Amadou Ba daal di continuer lii di liggéey bi nga xamante ni daal di na ko tàmbali ca atub 2019 lii rek moo gënoon fës ci xibaaru biir réew mi bokk yi ñu daal di génn ci biir réew mi dem ci biti réew taataan li fa jot ruus eh, ni ki eh, xibaar li nga xam ne moom mooy eh, coow li nga xam ne rek dafa yelloog li nga xam ne moom mooy ñàkkub essence bi am foofee ci Guinée fi nga xam ne rek lakk jo jot am mi ngi gën a yokk ñi nga xam ñoo ci ñàkk seen bakkan bokk ci gën a fa ci li ci gën a fës ci wàllu xibaar ci biti réew ànd ci ak ki nga xam ne moo di Ramatoulaye Cissé bilan wu explosion ak incendie bi nga xamante ne moom moo amoon foofee ca principal dépôt de carburant bu Guinée daal dina passé niki alxames yam ak ñaar fukki fan ak benn ci weeru décembre ci ñaar fukki doomu aadama ak ñett yoo xamante ne daal dina ñàkk seen bakkan xibaar boobee nag gouvernement bi nga xamante ne moo nekk ca Conakry moo ko daal di xamle ci jamono joo xamante ne ca biir Conakry sax ay xeexoo daal dina am ci diggante force de sécurité yi ak ay groupe de jeunes yoo xamante ne dañuy ñaxtu ni nga xamante essence yi ci station de service yi ñu fàttale que ni rek chef de militaires yi nga xamante ne moo nekk ca pouvoir ba foofee ca Guinée di le colonel Mamadi Doumbouya daal dina annoncé ni ki àllarba ci ngoon ab deuil national bu ñetti fan ci lu soxal ñi nga xamante ne ñoom ñoo faatoo ci boobee lakk-lakk explosion ak incendie bi nag daal dina bàyyi ñu bëri si njàkkare ak tiis ndax ay ménages yu bëri ay sinistré lañ jamono ji waaye tamit ay yàqu-yàqu yu bëri nem nemmeeku nañ ko foofee ca réew ma combat yu méttee métti yi nga xamante ne tàmbali woon na depuis avril foofee ci Soudan ci diggante armée beek paramilitaire yi daal dina provoqué déplacement yu bëri déplacement yooyu sax ñoo ngi toll ci juróom-ñaari millions ak benn xibaar boobee nag porte parole bu ONU moo ko daal di xamle niki alxames gi yem ak si ñaar fukki fan ak benn ci weeru décembre guerre boobee nag nga xamante ne moo ngi dox ci diggante chef fu armée boobe nga xamante ne le général Abdel Fattah al-Burhan moo ko daal di jiite ak ak son second nga xamante ne moom mooy le général Mohamed Hamdan Daglo te nekk patron wu redouté force de soutien rapide ñu gën koo xam ci FSR xeexoo yooy nag dafa dal di gëna law ni ki semaine bi nga xamante ne moom lañ génn foofee ca état wu Al Jazira te nekk ca centre est bu réew ma ñoo ngi sax jege si ba ville boobee di Wad Madini nga xamante ne moom moo doon servir plaque tournante humanitaire waaye tamit refuge pour ay précédents déplacés situation bi nga xamante ne moom moo am ca frontière libano israélien bi nag jamono ji dafa daal di gën a graaw ndax xeexoo ya ñu ngi gën di tàng ay raid aérien ak it ay tir de roquettes ak it ay dax ak it ay artillerie ñoo daal di laal région yu bëri yoo xamante ni dañoo jege wala sax dañoo dal di sori frontière bu Liban ak bu Israël benn membre bu Hezbollah sax daal di nañ ko faat daal di dooleeku sax ci téeméer ñaar fukki combattant chiite yi nga xamante jot nañoo faatu depuis début xeex yooyee mbokk yi tey li leen leen jàppaloon ci seen xibaaru bitim réew ci wàllu tàggat yaram la ñuy jeexalee waxtaan bi fi nga xam ni moom moo di arbitre boobu di Bakary gasama ah, daal di dem ci retraite ah, moom nag muy ñaax ndaw yi ñu gën a fësal seen bopp yaatal xibaaru tàggat yaram yi léegi léegi lay doon. Bakary gasama euh, daal di euh, dakkal li nga xam ne rek moom moo di carrière am gannaaw ba mu amee ñeent fukki at ñeent moom mi nga xam ni euh, jot naa def fukki at ak benn ci li nga xam ne rek moom moo di liggéeyu arbitrage Bakary Papa Gassama mi nga xam ne rek jot naa jot raayo yu bëri moom nag jot naa xamle ni ci alxamis gi ñu génn rek nekkoon ñaar fukki fan ak benn ci wérub décembre atub 2023 ni rek dina dakkal li nga xam ne moom moo di carrière am loole ñi ngi ko foor ci ab communiqué bi nga xam ne rek mi ngi jàll ci waa GFF ci li nga xam ni moom moo di seen page Facebook officielle beneen mbir euh, mu ñeel waa Guédiawaye euh, FC euh, ki nga xam ne nag juróon nañ ko fa wax bu yàgg tudd ko ci li nga xam ne rek moom mooy jiital équipe bi gannaaw rek ba ñu dàkkee kii di mbay Mbaye Badji Ansu Jaaju moom mujjee naa nangu li nga xam ne rek moo di woote bi nga xam ne woowoon nañ ko foofu moom mi nga xam ne rek moo yoroon équipe boobu di Casa Sport jot na signé contrat wu ñaari at ak ñi nga xam ñoo di Guédiawaye FC li nga xam ne nag moom moo di mbëbëtam rek daal di taxawal ak équipe bu dëgër këng li nga xam ne moom moo di euh, saison euh, prochaine bi ci dibeer euh, ñeenti fan weeru février atub 2024 loolu nag ki nga xam ne moom moo di Makan Mbeng moo ko leeral bañ doon def li nga xam ne moo di régularisation ndaje bi war a am ci diggante Zarko ak Niang bu ndaw ngir li nga xam ne moom moo di CLAF bi nag ñi di amateurs yi rek dinañ am ay ndaje yu am solo ci ñaari groupe yu tàng jër ñi nga xam ne ñoo nekk ci poule A bi nag dinañ ci gis ki nga xam ne moom moo di Njaay Tine bokk ci Bawol Mbooloo jàpp gàmmu Gueye 2 nekk ca lébu gi caatu yarax bokku ci askan wi yarax garga 2 bokk ci jàmbaar Doudou Sané nekk ci nga booy jaxaaw nekk ci Samba Diaw bu Thiès ak kii ñu naan Njaga Doole nekk ci Njaga Sarr loolu nag moom mooy wane ñi bokk ci poule B bi le ñaar ñi nga xam ne nag ñoom ñoo jiitu ci ñaari groupe yooyu nag ñoom ñooy daje ca final ba lii mooy dar képp xibaaru tàggat yaram yi jërë ngeen jëf mbokk yi téléspectateurs yi nga xam ne yéen ñu bàyyi xel euh, saa su nekk di leen rafetlu euh, seen kóolute di leen ñaax ngeen gën a way euh, di bàyyi xel suñu programme di leen di jox dig daje ci yeneen programme ngeen jëf